sunu boroom azza wa jalla ne alastu bi rabbikum ruu yépp seede ne bala cala yàlla tànnoon ci coobareem ay jaamam def leen buntu bi yërmandeem ci kaw suuf seen mission di xettali mbindeef yi guddi ak bëccëg kenn ci tànneef yooyu di ko wuyoo aw lool lañu leen bëgg a xamal tey jii muy seex Mustapha al wasala allahu taala ala sayidina mawlana muhammadin ndax nit la koo xam ne wax ci moom xëy dina jafe waaye tam dina yomb muy Cheikh Moustapha Al Karim di sama wóllëre di sama xarit bu yàgg muy jëm joo xam ne junu xam la te buñ ci wax di wax ci ku nu xam muy Cheikh Moustapha Al muy nit koo xam ne nit ku baax la di koo xam ne ab yëngoom akub dalam yépp alxuraan la waaye itam ak dimbali ay mbokki jullitam ci social. Cheikh Moustapha Al nit la koo xam ne ku fonk mbokk la ku am yitte la waaye ku amu yëg la itam nag. wa a'uuzu bika rabbi mi ngi juddoo ci dëkk bu sell bii di tuuba dalee njàngum alquraanam ci loxo loxoy wayjuram wu góor. njàmbaaram ak farloom ci sàkku xam-xam ñi ko doon jàngal ak ñamu jàngandool ñépp daf leen a yéem Cheikh Moustapha euh, muy doomi dëkk bi fii ci Touba euh, di koo xam ne itam euh, ku neex a présenté la bu dee jàng nag lépp loo xam ne ab jullit waras na koo jàng jàng na ko ndax première bi waajuram wu góor ci la dalee baasin miim ndax sëñ Moustapha Al yàlla dogal daara ji gën fekk daa bokk ci donga yi fi jaar doon fi jàng ah, am naa yaakaar nag moo fi jiitu sax ba ma fiy jàngal si fi fekk waaye ma dikk yàlla dogal gone yi ma doon jàngal moom ci la bokkoon bokkoon na ñi nga xam ne jaar nañ sama loxo ba seen wàllug alxuraan defe naa lu bare bari ci mën nañ ko jànge waaye moom itam dañ ko waajal ndax eh, samay at bëriwut wal mën naa wax ne suñuy at bëriwut waaye bañ xamante yàgg na eh, ndax ñoo bokkoon nekk ca daara ja eh, te itam Eh, nii mu mel nii rek man noonu laa mas a xam mu mel ko ndax eh, bi muy nekk di jàng itam eh, sëriñ bi nga xam ne mooy sëñ Moustapha Diop daan ñu jàngal da wax ne say morom yar la moo gën nga yar say morom loola bu ko masaana wax lam ci daan jublu mooy xaleel mu def dara ñu yedd ko ca corriger ca ay moromam loola Moustapha mosu koo dal man mii daan nañ wax waroo ànd ak kii fekk na man booba man lama xam ba tax may ànd ak moom man rek maa ko xam te yàlla suñu borom rek laa ko seedeel li ma ci gën a naw ci ay jikko mooy ko fonk ay waajuram la ku waajuram la surtout waajuram bu góor Moustapha boo naka kuy sa sëriñ mu ne sama waajur sama sëriñ boo waxee mu ne man sama ngërëmal waajur nday dabu mu peek xeeti xam-xam yu wuute géeju ci fànn yu bari terewul mu laxas génn ngir yokk xam-xamam ndax dafa war a xeeti li jaami yàlla yi. daara juñ naan daara seexul xadim foofee la yëggalee am njàngam alxuraanam waaye tam ca daara jooju itam fa la tàmbalee njàngum xam-xamam ca jamono jooju nag jiite woon daara ja ci njiital Serigne Xaadim Diop. waaye itam ka ko doon jàngal xam-xam jooje ci jamono jooja ca daara seexul xadim jooje di mawlaaya sëñ Abdul Xaadir Imaam moom it mu dooroon koo xam ne kenn ku ne xam na ko ci wàllum xam-xam ak fasaxaja ba mu fa jàngee mboolem lu doomi soxna di war a jàng ba noppi jaar na fa dem Tiwaawoon ginnaaw ba tam dem na Murtani ak yeneen yu fasantikoo yoo xam ne daanaka buñ koy tudd day bari lool. te bi ñu xamante ni nga xamante woon ci sàkku xam-xam yàlla dogal na bokk nañ ci nekk ci majaalisu sëñ As Jaxate bokk na nekk ci majaalisu sëñ Moustapha Mbay ci jumaa yi Tuubaa yàlla dogal nag yàlla boole nu nu bokkaat nekkaat fële ca Mauritanie ci max maxdar bi nuy wax Taysiir ci Cheikh Mouhamadul Hassan yàlla dogal ñu nekk fa di sàkku xam-xam. kon defe naa mën na maa témoigner ci moom lu bare baree bari ci wàllu xam-xam ndax bari na fànni xam-xam yoo xam ne man ak moom bokk nañ ko fa jàng ak yeneen sénégalais yu bari ak yeneen ajnabi yu baree bari mu nekk nit koo xam ne nag wax dëgg yàlla bi ñu dalee ànd ak di jëflanteeg léegi ànd beeg jëflante bi dara dara dara mës cee génn xam-xam suñuy waxtaan mën na mat une de temps wala lu ko ëpp ci téléphone bu ñu gisantee jotaay bi lum yàgg yàgg yàgg yàgg ci xam-xam tàmbalee ci xam rek la ñu yem bi ñu xamante léegi di ay at yu baree baree bari ca njëlbeen ga ba fii ñu toll mu am benn pas-pas ak benn philosophe boo xam daf ko gëm muy xam-xam xawma bokk ci. xam-xamu lasraar daf ko dond ci ay maama ki maamaat waaye doyloowul ndono li rekk gëstu na ko ci biir réew mi ak ci bitim réew. day liggéey boo xam ne it wax dëgg yàlla bu a xew bu yàlla dogalee nga nekk ab gëstukat te moom gëstu ñor na ko a gëstu ji ko indil loolu dana ko féete kaw wax dëgg yàlla ndax li am solo mooy nit ki na xool luy jariñ nit ñi mu jaral ko moom mu sonn ci ba noppi su ko amee ba noppi nag ñëw fas ko yéene jariñ ñi jaame yàlla yi moom nag mën na xam naa ne ko gëstu la maanaam li muy wax ni du te maanaam li muy woo nit jariñ du loo xam da ko fortaatu maa dafa doon loo xam lu mu gëstu la yàgg cee sonn si waaye way juróom bi ko jur xëy na nit ñi xamuñu ko ci waaye nit jóge na fu ne ngir ñëw ngir mu defal jox la ngay ñaan bari na ñuy ñaan ñoo xam ne way juram moo leen defal jox leen ñuy ñaan Cheikh Moussa yëkkati naa ay nit fu boole ko ak moom waaye yàlla dogal na mosuma kaa boole nit mukk te awma ci la ma ci bëgg li koy boole nit ñi it xam comportement am xam mooy kan loolu moo tax ma koy boole waaye sant naa yàlla daal jamono ju ne jëfnaante na ci lu baree baree baree bëri ci wàllu woowu mu doon te xam-xam itam nag daanaka moo yor adduna waaw lépp ci xam-xam lay dox adduna lépp ci xam-xam rek lay dox ndax ni ko boroom xam-xam yu mag yi di waxee ñu mel ne imaamu Xasaali ak ñooñu ni ñu koy waxee rek ci xam-xam ndax xam-xam lépp luy dox moo koy doxal dañuy wax ne weñ weñ ga ca kaw gaal ga sax di doxal gaal gi xam-xam a koy doxal waaw weñ ngay dox ca jaww ja nga xam ne ci lay dox itam xam-xam rek koy doxal waaw ndax xam-xam mooy te itam nit ki bu ci fu ci gëstoom toll ak yitteem himmaam rek fu ci yitteem yegg rek suñ borom mën a ko jàppale ba mu yegg foofee waaw ndax dañuy wax ne luy dox rek moo koy doxal te itam imaamu Xasaali ku jàmbaare la woon ci wàllu xam-xam ci xam-xamu fiq xam-xamu sariya xam-xamu asraar muy tasawuf mu soobu woon ci lool bari na barab yoo xam ne itam moom moomay man-manee ba yóbbu ma am na lu yàggul loo xam ne yaakaar naa boobaag léegi war naa mat juróomi at génn góor goo xam ne mi ngi woon Kolda nga xam ne boobu jug jafe woon na lool góor ga bañ fa demee tarbiyé nañ ko lu mu gàtt gàtt gàtt ñaari weer ak fukki fan ak juróom bañ ko tarbiyé ba noppi yëkkati na xam-xam boo xam ne jox nañu ko waaye xam-xam ba kenn ku nekk ci ñun xam na ne dëppoo wala li ñu suñu diine euh, jàngal ndax ak njabar la gu leer naññ naññ naññ waaye nag mag mu baax dafa daan wax ne xam-xam bu yóbbu nit sawara man xaw ko waaye jëf ju yóbbu nit sawara laa xam moo tax keroog boole nañu xam-xam yooyu ba gën na it boobu am-am bi ci wàllum koppar demeegut nii ma ne ko sëñ bi luy pexe ndax xam-xam bii ni ko góor gi waxee gaaw na loolu ci may xaalis mu ma lépp luy maye xaalis tey wàññi tey nit wala muy yàq dara ci diineem sëñ Modou loolu du ma ko def. bu buñ def ko ku jóg ñu ne li muy wax du dëgg loolu nii dañ ciy juum ndax nag ñëpp maase wuñ di woote te li ñuy dëgg dëgg na lu baax lu ne ba ci sunu daara ji ñu nekk nit mën na caa dugg ruux la ca di ca te la la muy wax nekkul ci moom kon nag ku jóg ngay du waaji nag waaj daa romb jàll mooy kon sëñ Moustapha moom man li ma xam ci wax naa ko kon nag yaakaar naa du ñàkk ñoo xam ne li wax dana mooy daal ku bëgg lu baax la xaw ma ci moom leneen nag ba keroog ma ko ci xam te yaakaar wax naa la koo xam ne waajuram sëñ am si rek sëñ ñaan Jóob mooy mooy mooy maamam ndax sëñ am si nii mooy mag ci sëriñ koo xam xam ne ci àndoon sëñ Tuubaa ba liggéey bi naa la it waajuram nga xam ne ku dëggu la ku baax la koo xam ne it wóor na ma ne boo xamante Moustapha leen moo koy njëkk kon bu fekkee mi ngi ci di ci yëngu rek damaa gëm ne waajuram nangul na ko loola te xam nañ lu baax la itam ndax waajuram it wax dëgg yàlla ko am xam-xam la ci fànn googu itam ndax man damay jëflanteeg moom ci yu mel ne waaye macha allah. day ñëw ci man may dem ci moom ñuy partager li nga xamante ne si moom la ñu yàlla jox ci wàllu xam-xam rawatina xam-xam bi nga xamante ne si mooy xam-xamu lasraar euh, xëy na ñi ci ëpp ci nit ñi dañ koy jàppee mbiru baatin mais mbir mi mbiru xam-xam la man moom ànd nañ ci daanaka te ñu ngi continuer di ci ànd ba tey mu nekk loo xamante ne si loo am am solo la ma yadfaul haarayni wan naarayni waab lana bi saada fil haali wal aati Mauritanie Gambie Mali Guinée-Bissau Guinée-Conakry Bénin Niger Nigeria Burkina Faso Côte d'Ivoire Dubaï Maghrib Bahreïn ak yeneen ak yeneen ak yeneeni réew état yu baree baree bari yoo xam ne euh, dund nan ko man ak moom waaye dund nañ ko it man ak moom ak nit yoo xam ne yàlla dogal na ña nga fa woon ci ay sénégalais waaye ña nga ci ay marocain waaye ak Algérie daanaka foofu moom euh, Afrique ñëpp fa daje waaye adduna ñëpp fay daje wax dëgg yàlla ci biir loolu mu nekkoon koo xam ne dafa ràññeekoon ci ñaar mooy suñu boroom nattoo ko taw feexale ko xims mooy mën a mokkal ci lépp loo xam ne koy jàng waaye it amuk faham maanaam amuk dégg lool ci lépp loo xam ne lu muy lu mu jàng la ba seex bi ràññee woon na ko lool sax daan wax ne moom de ku ku ma jaaxal la ci maanaam ak ñaw gu mu ñaw waaye ak dégg gu xóot goo xam daf ko am kon loolu témoignage yooyu moom yàgg na koo dégg rawat na nag di ko dégg ci kilifa yooyu nga xam ne ñoo nekk ci Mauritanie yàlla dogal na it ci étape boobu nga xam ne jaar nañ fi mooy ci jàngu xam-xam man cee témoin lu bare bari ci fànn yu wuute nag yoo xam ne wax dëgg yàlla fànn bu nekk rek am na xam ne bu kawe la noonu it la ràññ koo ci wàllu jaamu yàlla nit koo xam ne nit ku fonk julli la waaye nit ku fonk koor la waaye nit ku fonk nag eh, joxe la maanaam muy ab tab boo xam ne dañ koo ràññe woon tabam gi moom muy naar yi muy nit ñu ñuul ñi ñëpp a woon ràññee ci ak mbaax akuk tabe li ma lay wax ci wàllu jaamu yàlla it mooy dëkk nañ man ak moom ci benn néeg ay at waaye yàlla xam na ne eh, waxtu wu nekk su neewaa na nga kateyee jot ci guddi te déggu Cheikh Moustapha Al Karim yëngu mosuma koo gis ci moom mu wax loo xam ne xamu ko lu mu la wax am na ci xam-xam bu ci amul xam-xam tam dana la am kum la booleel pour kooka jàppale la ca man nag dama ko sopp rek ngir jëmmi alxuraan waaw bu yàggu rek doo ñu déggante des fois ma ne ko a ah, sëñ Moustapha xam-xam yi ngay jàngale de léeg-léeg sax daf may xaw a jaaxal ah, parce que yenn dimension yi ngay waxee dafay xaw a jaaxal ñu bari ah tabaarakallah loolu nag ah xayrukum man taallama alquran wa allama ah maa ngi ko doon jéem a tekki leen nit mën na jàngal alquran waaw te li li li nekk ci du bokk waaw kon boo ko bëggee tekki ne xam xayrukum man taallama alquran wa allama ki gën ci suuf mooy ki jàngale alquran déedéet ah ki gën ci àdduna mooy ki jàngale alquran ba pare génn jikkoom di ko jàngale ak melokaanam loolu nag tabarakallahu doon ko gis ci sëñ Moustapha ah soo ne ko jàkkari jëmm ji rek xam ne nitu yàlla la barke alquran parce que li may wax rek man képp ku may àndal ci àdduna xoolewuma la dara ngir bëtu alxuraan laa lay xoole alxuraan moo ñu boole ba ñu xamante yàggul waaye li ñu def ci ñun ak échange bi ñu am comme lu ma dix ans ah loolu nag yàlla moo koy def ci jaam waaye nitu yàlla dëgg la nit ku yàlla may fasaaq la nit ku am xam-xam ku xam lu xew la ku am yëg-yëg la ku fonk doomu aadama te suñu borom li ko ëppal yitte ci àdduna mooy ku téye jaama bi te nit dafay bari xam-xam ba pare di koy puukari woo te moom boo gisee ci melokaanam rek da xam ni kii nitu yàlla la waaw ah, ah, ñu sante ko yàlla nag ndax réccu ñu liñ ko doon xamee ah ndax yu ci baree bari li ñu wax rek ñun xamuñu dara fu ñu toll rek ci moom la ñu jàngate ay jànge ay leçon lu ci bëree bëri nag ñu ngi koy jàngal ñu ngi koy ñu ngi koy dugal ci suñu tawxiid sunu borom mi aji xereñ moo ko may ak xereñ ci lépp lu ëmb xam-xamu baatin ilmul adad ilmul xaatim ilmu nujum ilmu talaamis ilmu rawxaan ak mbooti asmaaullaahi alxusna lépp daf koo peek waaye la ca dëppoo ak alquran ak sunna mu boole lépp di ko jaamoo yàlla ci jaami yàlla yi di leen ñaanal ci seeni xaajo seeni tawat seen soxlay àdduna ñi mu samp leen ci kàttanu yàlla ñi mu génnee leen ci xat-xat yu metti ñu taxaw tey jii di ko seede ak di sant sunu boroom yàlla dogal li yëngu tamit mu jëm ci wàllu ñaan ak yu ni mel mu am ci may waaye yàlla dimbali ko bi képp koo xam ne jëflante na ci moom tamit suñu boroom defal la ci tawféex ba yàlla dogal na am na ñu ñuy jotee jëflante suñu boroom dimbali ma ca lool mu mujjee am fat ba yàlla dogal suñu relation nekk relation boo xam ne daanaka mën naa ne diggante baay ak doom la ndax jamono bu nekk ñu ngi may nemmeeku di ma xool ci lu ma nekk. amoon na jamono lool mu métti woon lool ci man dëgg yàlla feebaroon bay bëgg wax dëgg yàlla ba suñu waaka kenn ku nekk su ñoom génne woon nga sa xel ci man waaye yàlla daa dogal am soxna sama xamante loon su naan soxna su naan Amina Fall moom ma booleek moom. te yàlla bu ma booleeg moom wax dëgg yàlla tawat du ma amoon kat suñu borom dogal na bu mu jaayee sa moom dafa saafara waaw ñoo ngi sant bu baax a baax baax baax ci xamante gi ma xamante ak moom jëflante man jëflante gi mu jëflante ak man. dama yore woon place côté bikitu koñu Waly bi. léegi ñu ñu liggéey ma quoi léegi mag bu ma ko ko expliqué ma ne am na ko ma lay booleel mu jox ma numéro am léegi bu ma joxee numéro ma woo ko bu ma ko woowee mu ne moom mu ngi Touba ma ne ko est-ce que man mun naa ñëw mu ne ma non non jarul ngay ñëw mu ne ma dama lay liste xaaral mu ma liste xaaree mu yeewu suba moom moo ma woo sax ma ne ko maa ngi lay déglu sëñ bi mais lu ma wax daal bëri na bëri bi nga xamante ne sax mooy loolu comme dama yeewu xëy ba dem ba si buntu place bi. mais su ma tiimee place bi damay wàññeekuwaat mais bis moom bis bu ma tasanteeg moom wax dëgg yàlla kontaan naa trop dindi na lépp maa ngi sant yàlla jaay baa ngi dox macha allah daal. ku xam nit la ndax man sax man tàmmuma di def lu ay listixaar ak ay seet yooyu noonu waaye dafa am un jour ma amoon ay itte waxoon ko mu xoolal ma ay kii listixaar waaye wax dëgg yàlla bi ma defalee listixaar li ma wax lépp dama cee teg sama bët. fekk boobu mi ngi ma fekk foo xamante ni sama yaram bi da doon diis may tàyyeel di sonn sama bopp bi di metti lu ma def sonn tëdd rek mu yónnee ma ay cuuraay mu yónnee ma ko mais bi ma ko suuroo ñetti fan lañ ci def ma am lu ma gis sama biir kër waa ma woo ko wax koo ko mu ne ma man képp ku may jëflanteel mooy nga xam ko ak nga yëg ko ak nga ñàkk koo yëg lépp lu ma gis ci yow dinaa la ko fegul ba nga xam ne fegul naa la ko yooyu ay mbir la woon. dama doon seetaan TikTok dugg ci dugg ci bis ma yem ci vidéo ci laa duggee ci kontam di seetaan ay vidéo muy def lu am solo nag ma gis mu def lu am solo di joxe ay secret yu doy waar ma gis mois témoignage aussi ci laa jëlee numéro fekk temps yu maa ngi am soxla trop te maa ngi xawoon a tawat si laa ko contacté bi ma ko contacté nag ma jot ko. ma expliqué fu ma jëlee numéro ma wax ko samay soxla mu déglu ma nag comprendre ma taxawuma ma aussi jàppale ma xoolul lu ma am xoolul lu ma ñàkk xoolul ne ma lii laa lii ngay def wala lii nga may jox non dina ma incha allahu rabbi ci leeru alxuraan li ma yaakaar dinaa la taxaw te ni mu ko waxee tamit noonu la ko defee. li may doon doon mag depuis ba ma doonee xale ba tey lu nekk ci man wax na ma ko ci yàlla xam ne di nga am fan yi rek lañu la ñuy soog a seet moom moom li ma ci wax kenn musuma ko wax ba ma juddoo ba tey sëñ mu ne nag dem naa waaye li ma wax ci ceet kenn musuma ko wax ñaan gi itam li ma wax sama sama waa kër ñi li ma ci wax lépp dara kenn mus kenn kenn kenn musuma ko man daal maa ngi koy sant man naal damaa bëgg ku ko dégg lii ku ko dégg nga fexe ba giseek moom ba jàkkaarloo moom rek. man de wax dëgg yàlla bi ñu xamante ba léegi yokkute rek laa ci gis waaye rëccu ma ko ndax euh, sama jëwriñ ju naan sëñ ma code Diop moo nu boole woon ma amoon ay jafe-jafe lool découragé woon lool ndax ko xam suñ métier artiste mi xam ne dafa bari ay pakk-pakk ay buuxante ay defante waaye ba ñu yàlla xamale ba léegi ah maa ngi sant de maa ngi sant lool wax dëgg yàlla maa ngi sant lool seex sa Moustapha sant naa la lool yàlla yàlla fay la waaye yemuma ci ndax dama ko booleeg ay nit nit ñee ñooy ñu koy booleeg ñeneen ku ne di ci gis sa njëriñ xam naa moom wóor na ma ne képp koo xam ne si maanaam ñëw na fi yow bu bëggee aajoom faju dina ñëw si yow ndax xam naa moom am na fi ñu fi jaar ñoo xay yàlla def na def naa seen xol sedd lu ma limi tourné waaw loolu moom xam naa ko ci. ku am jafe-jafe ci sa wàllu loo mooy këyit yooyu lijjanti jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy wàllu ngóore wàllu bunti wërsëg yu tëju wàllu ñàkk wàllu rab bët làmmiñ seytaanik niti guddi lépp jafe-jafe doomu aadama jàkkut la jeexal na xéewal xéewal dikkal ne leen Cheikh Moustapha Al Karim ngi noonu mooy jaamu yàlla ci yàlla te li ma gën a neex ci Cheikh Moustapha mooy da lay ñaanal ba pare ñaagal la faj la ba pare yëkkatiwaat ci poosam yeewi la ne la demal loolu kan moo ko mën ku mën na def kon mi ngi noonu waa Sénégal Cheikh Moustapha ngi noonu yéen a ngi noonu njëriñi kese la dem leen ngeen seeti ko billaahi wallaahi du ma wax loo xam ne xaw ma ko magum jëmm laa jomb na maa wax loo xam ne du dëgg waaye Cheikh Moussa ñam naa ko yéen it ñam leen seet su ngeen ko ñamee da ngeen tàqamti ko ni mu dimbalee ñii ci xam-xamam ni la dimbalee ñeneen ci am-amam ngay dajeek moom ci mbedd yi ci sancaan yi ci daaray alquraan yi ba ci jàkka yi ak jumaa yi ñun ñi nga xam ne nag ay sëriñ daara lañ te yàlla dogal tamit ñu nekk ci daare di ci yëngu ñun mi ngi ñuy jàppale bu baax te dañuy dimbale si alalam ak ak ak dooleem kon nag kooku wax dëgg yàlla duñu dex lu di ko sant ak di ko ñaanal ak di ko gërëm walaay la xam ne am nañ yaakaar ne moom képp koo xam ne moom jëflante nga ak moom ba dis ko soxla am na yaakaar aajo jooja dara saafara wo si kàttanu yàlla ak baaxam wax gi sax gënalul waaye nag fi ne lu baax kenn du ko nëbb mboolem ñi nga xay yaa ngi koy def ci lu baax man ñuy wax yow de yàlla seere naa ne bu tey jii bu fekkee ne danoo dendan tey foo ànd ak fooy jëm fu ne dina ànd ak yow te la may wax ko ndëf kamil dama koy mën a waat ni yaa ngi koy def ci lu baax yaa ngi jàpp yaa ngi teral koo xam teral ko xamut yow fi mu ne alal soxla woo ko yow nit ñi dañuy tabax wut ciment yow ngay tabax ci doomu aadama loolu moom xam nañ ko bu baax a baax. liñ ci mën a seede mooy année mu ne dañuy yeewal am xar waaye du yem ci xar moom moo tamit yére bi nga xam ne si moom lay julle jee tamit moo ñu koy fàggul te lépp la nga xam ne si ne daara yittewoo na ko wala ñooñ daara yittewoo ko rek euh, dañuy def kem kàttanam muy koo xam dafa juddu ci daara ndax moom ba muy sos daara euh, ndaw la te yàlla ak yenent bi rek ñor ko ak alquran waaye yëmul ci looloo tamit di bay ay tool bam ñoro tamit mu koy def social di ko jox mbindeef yàlla yi kon loolu kenn mënu ko cee fay muy nit koo xam ne si ne képp ka xam ne si ne ñëw na ci ñun jàmban ñu soxlaam ci wàllu àdduna rek ci saaxi rek dak cey faj kon bu ne ba tawat dikkal ko wax dëgg yàlla das ka daan boole ak moom te mbooleem kun ko booleel rek gis nañ ne euh, la ciy mujj mooy alhamdulilah. moom du jàng alxuraan ba noppi li alxuraan di wax lépp mën nañu da koy jëfe ba tax na loolu moo tax sama digganteeg moom gën a doon ration bu dëgër a dëgër waaye nit ku tabale yi nag wax dëgg yàlla si am boo gisee muy joxe. da nga yaakaar ne ci ay milliards lañ ci te loolu ak tabe moo moo waral. man de rëccu ma ko bo saa ba moom day mu defal lay teraanga yàlla xam ne bi ma jékki-jékki-jékkee gisee ak moom tey yëkkati na teraanga ji bari jox ma te daanaa ko dégg ci moom waaye wax dëgg yàlla tey la ma gën a leer ndax gis naa muy def lu baax di ko jëfe te it yàlla xam ne lu ko waaye wax ci mbir ak jaaxle ak wet fànn gu mën a doon danaa la ci jàppale. benn suur jóge nañ fi Guinée Bissau léegi bi ñëwee ba Tamba suñu lampe essance bi signalé booba ñu ngi yoroon benn Ford Escape bu balan ma jàdd ci estation bi ñu taxaw euh, genn góor daal di ñëw ci sama wet noonu taxaw man sax xaw naa koo tànqam lu booba sëñ bi ne ma wàcceel weer bi ma wàccee verre bi mu daan ne sëñ bi wiiril sëñ bi wiiri ñëw. expliqué ko waaye nag boobu xam naa jafe-jafe ordonnance la ko doon expliqué léegi ñu ngi yoroon euh, sañ bi mi ngi ma joxoon trente cinq mille francs pour ma sol ci essence léegi mu laajaan ma trente cinq mille yi daat koy jox sëñ bi boobu ñu ngi ci waroon a sol essence pour ñibbi si Touba Mbacké loolu nag nekk lu ma marqué ci Cheikh Moustapha Karim ndax yàgg nay dimbale doomu aadama waaw benn ci man mii rek yàlla seere na ko man daf may dimbale chaque jour chaque jour chaque jour ku baax la ku am positif la te tamit ku am sutura la ndax tamit du nga defal nit dara pare tamit wëlbati ko waat di ko wax kon kooka mañ na ni kon ku jàmbaar la kon ñooy ñaan daal ci barkeb alquran ak barkeb euh, yonent bi alayhi salaatu salaam saa borom gën koo dëbb kattan gën koo yokk ba li nga xam ni moom la bëgg a liggéeyal euh, lislaam suñu borom defal ko si la koy njortam wax dëgg yàlla soxla su su ko waaye jàmbar rek muy soxla si biir fañ na ko muy soxla si biti fañ na ko benn ci man mi mboole loo xam ne si ne suñu bët xonk na ci wala daara woo na ko moo xam lu jàmbale ci téere ba ci yére bu yu sol ba ci basangu yu toog wax dëgg yàlla moo ngi ci taxaw lool lool rawat na li nga xam ne moom lay dunde ndax lii di buun sax mën naa ne du su ko def ndax itam heure bu suñu xel nekkee ci lu xeet ca loola day jël gàtt yónnee ñu ñu mën koo defar def ko ci frigo di ko jëfandikoo ak ñu xale yi. fu ne dugg naa fa fu ne fay naa fa sama xaalis mais man ferewuma fa sax loo xam ne jar nañu naan fere bi ma fa jógee mu jox ma cuuraay bu ñu naan temps yi sama bopp baa ngi metti bi ma ko joxee cuuraay yi waxuma la protection kase mais romb na protection parce que yëkkatiku laa ci gis ak yokkute te yàlla rek moo ma tax di wax ma ko ciy sant di ko ci gërëm ba may waaj a ñibbi dafa yëkkati kaamelu alxuraan bi mi ngi ne daal di ma koy jox mu doon loo xam ne lu kawe sama njott la loo xam ne nii lu ma bett la doon na loo xam ne tamit lu ma gën a fonk ci sama àdduna walla kàddu bi ma gën a fonk ci bokk na ci ndax nit ki nga xam ne yëkkati na kaamilu alxuraan jox la ko kooku bëgg na nga baax. jëflante gi ñu jëflante ak doomu aada yi moom yaakaar naa ne ku koy wax fii doo fi jógee ndax moom lu baax rek lañ ko xamal day rey day day dem ci dara gi génn def ay nag yu bëree bëree bëree bëree bëri euh, rendi ko def ko ay saam di ko séddale jaami yàlla ci rek yàlla rek tax li mu am lépp ci jaami yàlla lekk rek moom dencul dara dencul dara li mu am lépp lépp lépp lépp ci jaami yàlla rek la koy la la la koy la koy delawaat. man mii ci boppam fekk naa du benn du ñaar du ñett. ay yoonu yoon yoo xam ne nit ñi dañu am ci moom yaakaar ñëw ba ci moom wax ko seeni soxla ak soxla bu mu mën a doon daf koy jaral sax xañ boppam ngir faj soxlay nit ñooñu waxtu wu nekk soxlay jàmbur yi nga xam ne am nañ ci moom yaakaar di ñëw ci moom moo nekk priorité moom la gën a fonk sax maanaam soxlay boppam waxtu wu nekk ci lool lay dox social bañ na ko ba sag tabaski daanañu ànd lu baree baree bari ci euh, sancaan yi mu di fa yóbbu ay xar ay nag xéewal yu baree baree baree bari di ci dimbali ay nit ñuy faj seen aajo waxtu nekk noonu la koy defee ci màggal yi di ko defee noonu ci korité yi di ko def tabaski ak bépp événement boo xam ne jub si na te ña nga xam ne ca sancaane la nekk seen loxo jot seen ginnaaw moo fa yóbbu ay xéewal ak i dépense waaye itam di leen dimbali ci lu ñu jëfandikoo incha allahu rabbi ngir mën a jagal seen seen seen programme yooyu. jëf yi yépp am na solo lool waaye la yàlla taggee woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallama muy jikkooy rafet turandoom wi roye na ca lu bari. وإنك لعلى خلق عظيم nit la ku baax koo xam dafa yor jikko yu rafet ba doomu aadama bu yàlla may basiira nga di ko xool da nga xam ne nit ku baax a ngi nii loolu nag daanaka mbaax mënta weesu loolu ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam sax noonam yi ko gënoon a bañ ñi ko gënoon a noonoo ñi ko gënoon a mën a wuute ak moom xamoon nañ ne alayhi salaatu salaam boo ko xoolee danga xam ne kii du nit kuy fen waaye nit koo xam ne nit ku kuy wax lépp lu mu wax dëgg la loolu nag dafay dafay dafay am ci ay doomu aadama yoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf leen di melal ci melokaan woo xam ne boo leen gisee da xam ne ñii duñu nit ñoo xam ne eh, nit ñuy wuute ak dëgg lan waaye du nit ñoo xam ne nit ñuy wax lu lu dëgg ci ñoom la wala ñu koy jëf kon loolu jikko la ay benn benn jikko yu nu xam ci moom waaye ñu xam ci moom nag jikko yu baree bari yoo wuute sax yoo xam ne euh, xam naa ne daal boo doon tënk lépp danga xam ne nit ku baax a ngi nii ab jullit piir a ngi nii waaye as gor a ngi nii. loolu dafa am solo parce que man euh, dama ko gis lu bari léeg-léeg léeg damay dugg ba ci Facebook am sax léeg-léeg bu su ma bëggee jàng yéen xam-xam yi damay dugg ba ci Facebook am. mais léegi da nga gis euh, dimension bi muy waxee maa ngi fàttaliku benn jour maa ngi dugg ci Facebook am photo yi sax dama ko capté yoroon yónnee ko photo yi muy wax bi mi àndi bi mu dem Gàmbi la xaw ma bi mu dem Gàmbi am ñaar ñu mu àndaloon maanaam dimension boobu dafa dafa dafa ma yéeme ba dama dafa tuur damay dama tuur samay rangooñ man dafa tuur samay rangooñ parce que dimension bi muy waxee moo xaw a xóot mu gis benn góor góor goo xam ne ak genn góor goo xam dafa màgget gàddu ñaari saak. ci Facebook bi de laa ko doon liire face Facebook bi man léeg-léeg su ma bëggee yéen jàng yéen xam-xam damay dugg ba ci page Facebook am da koy liir wala moo dugg TikTok am parce que li ko sunu borom jagleel moo rëy parce que amaana ñoo xam tey ji maanaam ñii bokk ñoom mën nañ mën nañ koo bañ a xam mais ki ko sori rek moo koy xam jour bu ma ko jëkk a yónni message boobu jamono yi man maa ngi Dakar jamono yi man maa ngi Dakar. dama doon dugg Facebook am lu ma doon liir ma yem ci photoom waaye bi ma yemee ci photoom ci dogalu borom bi tabaaraka wa taala dama ko gis rek dama gis photoom rek xam ne kii am na lu ko yàlla jagleel ci laa kaw ci laa capturé numéro am yónnee ko bi yow day sunu borom tabaaraka wa taala dimbali na la dimbali na la lool te xam naa ne tey sa dënd leeru alxuraan rek moo ci nekk kon na bu ñu fàtte. mais dimension boobu kóllëre gi ñu seq man ak moom parce que man li ma wax rek man su ma jàpp nit jàppewu ma ko ci am-am jàppewu ma ko ci alalu àdduna su ma jàppee nit ci alquran laa koy jàppee parce que alquran moo mën a boole lépp ah lu jóge ci xalbul ko di wàcc benn suur damaa mos a toog ma ni arrahman xallama alquran wa allamahu albayaan ñu ni yàlla moo jàngal nit alquran ma leen yàlla jàngal nit alquran est-ce que loolu dimension la wala suñu borom dafa digal ni alquran xol bu sellul bu ca wàcc nag yàlla def ko ci suñ Moustapha ndax jikko ju baax moom du caagee ni kiyee koy xam kële du ko xam waaye képp koo jaxasoo rek eh, suñu borom tabaaraka taala dafay dogal ne jëflante gi ni ngi jëflante dafay feeñ ci dafay feeñ ci jikkoom waaye nag muy nit koo xam ne it yàlla daf ko ni ma ko waxee woon sànq ci biir waxtaan wi mooy suñu borom tabaaraka taala def koo ubbi ci ay fànni xam-xam yu wuute fànni xam-xam yu woo xam ne yenn yi luñ si mën a waxtaane fii la waaye am na ci yoo xam ne mënee su ko waxtaane waaye daal eh, man mi nga xam naa ko ak ñun ñi nga xam ne ñu ci bari ci ñu ko miin xam nañ ne kiimaan la ci kiimaani borom bi tabaaraka taala ndax Eh, yàlla ci jëm boppam léeg-léeg mooy def ci jaamam loo xam ne boo jaxasoo moom danga xam ne kii borom bi tabaaraka taala waajal na ko waaye am na lu mu def ci moom loo xam ne defu ko ci mbindeef yi ñu baree baree bari nii waane ci doomu aadama yi ñooy taseeg moom ci jikko yu mel noonu wala ci melokaan wu mel noon ànd na ma ak moom ba tey du benn du ñaar du ñett ñu ànd benn suur suñ kër lañ jógee sax mu ñëw seet sama lu kër si ñaan. ay boori tisbaar yooyu mu ne ma nañ ànd dem ci boutique ba bi ñu ànd di doxantu noonu ñu ngi génn rek yam ci benn en milan ma ngay jaay écouteur kooku boo xoolee lim yor lépp boo ko calculé matut 5000 bu matee ay 3000 ci la yam yaakaar naa tolloog ay ñetti casque la rango yor benn kii euh, mooy pochette yi ni pochette yooyu kii te mag la boo gisee muy dox ci naaj bi ma naa dem Abdou Hakim wol ma kii ma woo ko mu ñëw mu ne ko écouteur bi ñaata lay jar waa na ko 1000 francs mu ne ko est-ce que doo ko def 700 di ko tooñ waaj na ko waa baax na jëlal Cheikh Moustapha yëkkati junni jox ko mu ne ko ah sëñ bi de mën amu weccet mu ne ko su ma la mayee weccet bi nag mu ne ko ah boo ma ko mayee dinaa sant loolu mu ne ko jëlal waa ji keroog ñaanal na ko ñaan yoo xamante ne si man gëm naa ne sax ñaan yooyu bokk na ci li ko topp te loolu du benn yoon la koy def am na boo xamante ne si siiw na muy góor gi mu taseloon doon jaay fëgg jaay amul kër yor ay tout tànk tey tey gis na ko taxawal na ko ba mu am kër te bu ko neexoon ne xale la la muy def ci góor ga mën na ko def ci boppam fa dëgg yàlla bari waa na mag ñoo xam ne war nañoo roy ci moom surtout ndaw ñi. man daal damay gën a soññ mbokki taalibe yi ñu gën a jàpp Sëñ Moustapha gën a gëstu kan mooy Sëñ Moustapha al Karim gën a xam kan mooy Sëñ Moustapha al Karim moom alal tax koo jóg. yaakaar naa su ko alal taxoon a jóg rek lu nekk mën nañ ko proposé ci àdduna bi waaye moom jub jubal rek la xam léppam alxuraan la léppam ku sell la ala alladi sumatu aidu wa ali ma saabil muhtadin yaa man bi liya waabta xayra din wa salliman alayya karimo waxud ilayya kullama arum salli wa salliman ya rasido على الذي بي بدا ترشيد وهو الذي سميته واحدا يا واحدا قلت له توحيدا وآلي وصحبي ساداتي يا من له عبادة هاداتي صلي وسلم ndax pësiyëf mooy maye lépp li ngay liggéey nga teg ko ci yoon liggéey bu am na lu laaj waaw bu dee ci ñaan la bu dee aajo la am na lu mu laaj waaye bu doon ci koo xamante ne bi day faju lu jëm ci moo xam rab la wala liggéey la wala lu ne ci moom loola it am na lu mu laaj waaye benn bu ci ne rek jox ko àqam waaw la ca war nga def ko ca loolu mooy li ci nekk. soxla woon nañ dimbalu ku leen ñaanal ndax bari na mbir yoo xam ne mbirum baatin da koy soxla loola nag ku ca suñ borom defal tawfiq nga man ca dara war nga cay dimbali nit ñi te di ca jaamu yàlla waaye bañ caa takk seenu biir loolu moom ku cay yëngu ku ne war nga koo bàyyi xel. ndax képp koo xam ne da koo def rek wutukaayu xaalis bis dana ñëw nga xam ne eh, defoon ko ngir yàlla suñ borom rek moom ndax aduna moom day neex tey suba mu naqari waaw gis yëf yi dox rek nag di neex nga jàpp ne moom bis du ñëw mukk mu naqari loola moom ku koy def ku ne yaa ngi ci njuumte kon daal loolu moom bokk na ci li nga xam ne ñu ngi ko koy bàyyiloo xel te xam na itam kuñ dal xel ci moom la ndax jàpp nañ ne moom eh, yooyu yi nga xam ne ay gàllankoor la wala yooyu yi nga xam ne Euh, mën naa gàllankoor ñi nga xam ne ñooy yëngu ci métier moom loola jàpp ma ne moom sëñ Moustapha dana dugg ca yooya ndax moom ku ko xam-xam ne euh, nit ku sell la koo xam ne ku bàyyi xel boroomam subhaanahu wa ku koy topp itam di dégg ay discours am da nga xam ne jamono bu nekk lu lu ci nekk da koy delluwaat ci suñu borom subhaanahu wa taala te loolu rek moo am solo mooy yàlla itam lum la mën a may euh, bul jàpp na lépp bul nga jàpp ne rek mën a mën a mën a mën a joo gis rek xamal na du yow ndax la lay baatin ba nekk ca ginnaaw bay yiwanal mbiri loola mooy suñ borom subhanahu wa taala kon nag di bàyyi xel ne nit ñëw na nga faj aajoom nga jàpp ne Eh, yow yaay fajkatu aajo bi ndax loolu fi ne mooy surnom yi gars yi xewal nga xam ne da ngay dégg ñaan diw faj aajo diw nangam diw tur yoo xam ne da lay wóor ne moom la yàlla xam doy na loola nag bokkut ak li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la moom noonu la noonu la war a dem li ma koy soññ di ko soññ sama bopp mooy ñu gën a gëstu gën a fonk xam-xam tey tamit gën a def suñuy yitte yëpp muy jëriñ doomu aadama yi parce que loolu rek mooy li am solo te jàpp naa ne nit bu ñu lay xasee tuddee doomu soxna bu ñu lay tudd buñ la xasee tuddee ab sëriñ sa yite yëpp moo war a nekk jëriñ doomu aadama yi xam naa ne ci loolu la nekk sax ndax loolu la xam loolu la fekk ay woy juróom di ko def kon nañu gën a lu ñun ñëpp rek gën a teguwaat si yoon wi bu baax a baax. lu ma koy gën a soññi tamit nit li gën a rëy ci ci li jaam dañuy wax ne jaamu yàlla gi gën a rëy. mooy bi yàlla bindee mbindeef yi ba pare nga xam ne ñii mbindee fi suñu borom lañ te am nañ àq boo xam ne yàlla sedd na ko sa diggante ñoom àq boobu na koy doxal ba mu mat sëkk ndax nit li lay li lay suñ borom nattoo dafa bari surtout ku nekk ci wàllu woowu noonu suñ borom dina la nattoo ko am dina la nattoo ko amut dina la nattoo ko xelam manqué dina la nattoo koo xam ne ku texit yooyu yëpp dala koy nattoo waaye nag nit da dem ba tollu foo xam ne li wax nday ji seex nga waaye bàyyi ji seex la mën naan maanaam côté bu nekk lu nekk mën na ko faa dikk nit ku nekk mën na ko faa dikk waaye alhamdulilah bi yàlla dogalee mu yor xol boo xam ne si nii mën naa mën naa dundoo ko ne ndax léeg-léeg ci ay image rek ma gis mu toog ak koo xam ne wala mu nekk ak koo xam ne xam naa ni bu dutoon borom xolu yërmande wala mu nekk nit koo xam ne si nii kuy bàyyi xel doomu aadama la am na nu muy ñu muy jëflanteeg moom tey gis naa yoo xam ni ni muy doxale de bu fekkee woon ñëpp ñu ngi doxalee noonu ñëpp ñu ngi defee noonu suñ borom mën naa mën naa def nit ñi dinañ bëggante te dimbalante dana am suñu diggante. li ma koy soññ rek sax nag du bari ndax moom wax dëgg yàlla nit koo xam ne mu ngi ci yoon wi di góor góorgóorlu kemt layal kattan nekk ci la mu war a nekk bokk fu baax xam li ko war waxtu wu nekk mu nekk ca kooku li ngay def rek mooy ñaanal ko mu gudd fan lool ba lépp li nga xam ne mu ngi koy mébét ak di ko naal suñ borom subhaanahu wa taala mën koo jàppandal mu mën koo yeggale ci sagoom ndax euh, nit la koo xam ne wax dëgg yàlla lii mu nekk di ci yëngu muy wàllum lasaraar nit ku ci sonne la gannaaw bi mu xamee ne bokk na fu baax dond na li mu war a dond lépp ci ay maamam ak ci ay wéyjuram moom it ay wéyjuram xam la leen war ci moom ba mu demee ba toll ci war a jàng ñu yóbbu ko ca daara yi gën a mu sàkku ji xam-xam mu demee ba nga xam ne mesure na toll na fi nga xam ne moo war a jël ay responsabilités yi boppam génn na réew mi jàng na ci biir réew mi ba dàmbe ay xeeti xam-xam yu baree baree bari ay xeeti xam yu baree bari yoo xam ne dambe na ko kon kooku li ngay def rek mooy ñaanal ko waaye ko xam ci li nga nekk moom wax dëgg yàlla li nga koy soññ du bari mu nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla nit la koo xam ne xam jaral na ko lu nekk waxtu wu nekk ci xam lay dox waxtu wu nekk ci lay ci ci lay sonne ñoo ngi koy ñaax mu gën a góorgóorlu te xam ne fi mu teg tànkam foofu la xam ne lii mu nekk day wax dëgg yàlla maamam yi nga xam ne ñoo ko bàyyee bàyyeeloon buñ jël si waatoon duñ am dara luñ ci regretté duñ ko teggeloo tànkam benn yoon fii mu ko teg ndax wax dëgg yàlla lii muy def muy ñaan yàlla boo ko defee moom la war a def chaque jour wax naa ko bu ko defutit da ko war di def ndax dafa bokk ci nit ñi nga xam ne suñ borom subhaanahu wu taala daf leen a baaxee xam-xam yoo xam ne faw ñu di ko génnee ngir mën cee jariñ nit ñi ndax damay faral di wax waxtu wu nekk naan yii ñuy tasaare ci internet beeg yu mel noonu yu mënta ñàkk la ndax doomu aadama bi nga xam ne yor na sondeel mu leer ko ne sondeel ba mën naa niital aw askan wu baree baree baree bari mu taal sondeel ba pare jëlub sewo nëpp ko ca wala ak paan leer googee du am njariñ waaye képp koo xam ne taal nga làmp cib néeg kooku daa bëgg a leeral waa néeg ba ku taal cib ëtt bëgg nga leeraay ba gën a yaatu ku taal cim penc itam nag wax dëgg yàlla leeraay ga day gën a yaatu rek. kon duñ ko def lu ko ñaanal ko barke rek ñaanal ko leer ko alxuraan gën a tàbbi ci moom yoon bi nga xam tamit moom la jël yàlla na ko ci suñu borom defal lu kawe njortam barke moom li may wax dañ ko koy ñaanal mais am na ko barke ngëneel fasaxa yàlla loolu lépp yàlla jagleel na ko ko parce que man maa ko xam man maa ko xam sëñ Moustapha man maa ko xam parce que lu ci baree bare suñ borom dañu koy wan ci moom suñu borom dañuy wan lu baree baree ci moom ci jëmmam. doomu aadama boo xasee ba jug ne da nga bëgg jëriñ doomu aadama yi sa première noonu mooy seytaane seytaane dina ngemb nit ñi toujours ñuy dox jëm si ci yow waaye nag comme li may wax jullit moom du ragal. doomu aadama du ragal bu xasee ba nekk ci njub bu xasee ba nekk ci dégg kon li nga xamante ne sii mooy lañ koy ñaanal rek suñ borom musal ko xëy na am na fu mu toll am na fu mu bëgg a àgg moom moo ko xam te jàpp naa ne lépp lu baax la maa ngi ñaan suñ borom euh, bu benn ndokk daal nekk ci yoonam li nga xamante ne si moom la bëgg yëpp ci àddunaam ak alaxiraam ak ci alxuraan procès yi nga xamante ne sii moom la ci am yëpp yal na ko yàlla sottil incha allah. Cheikh Moustapha géejug ngëneel la yàlla sotti xéewalam kuy sàkku ak xetal na gis seex Mustapha ab tab la ab yaaram bu jubla te selli jëf xam-xam ba dex la ko sëmbu tooy cey Mustapha waxwal karim mubnul karim mubnul karim tànneef bu mat da ci gépp wat seex Mustapha waxwal karim mubnul karim mubnul karim tànneef bu mat la ci gépp wet seex Mustapha tànneef bu mat la ci gépp wet Cheikh Moustapha. Serigne Touba disait dans son œuvre Kun Katiman, car la science n'est jamais octroyée à quelqu'un qui craint la faim. Sache que Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience. La patience, un caractère que l'on pourrait attribuer à ce digne petit-fils de Serigne Niane toute sa vie. il l'a consacré à l'apprentissage des enseignements de son guide spirituel, Serine Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Une maîtrise parfaite du Saint-Coran dont lui seul détient le secret. Partout où il est passé, l'on se rappelle de lui comme étant un Ongodara à qui on présageait déjà qu'il serait un grand marabout. Serine Mustapha Al-Karim ne se limite pas seulement sur l'enseignement du Saint-Coran.